góor gi coono ba mu daan nekk di jóge Dakar di ñëw ba ci champ de course yàlla ak sagal njaboot rek moo tax waaye ñun itam ñu jéem a barkeelu ci moom ñëw ànd ak yéen guddi gi ngir yàlla ak sagal rekk moo tax mu mel ni itam sonn ngeen ci góor yu baax yi ngeen ko bokkal yépp sonn ci muy góor mu jigéen ñu dëkk ci biir daayira bi tabarkalla ba ñi nekkul ci biir daayira sax di ca sonn ngir jàppale leen mu mel ni kon nag ñu di leen ñaanal yàlla di leen ndokkeel te di leen encouragé sono mu xayri mu ngi ñëw ànd ak délégation ndax xam ni mook yéen yéen a bokk lépp ñu am itam sunuy gan yu jóge ba Dakar ñoom ñëpp di ay journaliste wa tabarakallahu soxna Alima Njoon waaw wa bu seen TV ànd ak wëllëreem ak it soxna Assu Kan bu 2STV ak Hadj Mansour Diop bu leeral TV tabarakallahu ñoom itam kenn ku ci nekk Oustaz Modou Fall daf ma mës wax bés ca dakaar ñu am audience mag moom mu ni ma ba yàlla bindee yonent yàlla aadama ba léegi bindagul ku ma la gën a sopp waaw waaw te léegi la ko mujj feddali bi ñuy nuyoo léegi waaw ma defe ni kon nag ñi ñu am ñëpp tabaarakallahu pap ale jàmbaar dëgg la waaw te gor dëgg la waaw te mission bi mu amee it gor yi ci réew mi yëpp la ko ameel waaw moo keroog bi ñu ko jàppee te Haji Mansour Diop bi téléphoné ma ñu ma arrêté nañu Pape Alé te umpulewuloo fi ñu jëm ak moom waaye rekk ñu dénk la ko nga bàyyil ñu ko xel wa tabaarakallaahu benn mbokk a ngi toog nii ci sama ndeyjoor moom laa wax ni ko demal nga wutal ma ay photo yu Pape mu indil ma photo Pape Alé yu tolloog photo d'identité ma ne ko nga wutal ma photo Ousmane Sonko mu wutal ma photo Ousmane Sonko waaw ma xam na li ñu yéene ci ñoom mooy bàmmeel waaye insha allahu yàlla li mu maye woon bu ko nanguwul danañ dellu si fii wax waaw moo tax keroog bi ma xaaju Mansour Diop wooyee téléphone ñi ma sarax ñu rekk Pape Alé mu nga hôpital te dafa commencé di def grève de la faim te dañuy ragal grève bi am lu mu wàññi ci moom te yow lañu wóor ni loo ko wax dina ko def ñu bëgg nga ñaan ko yow ci sa wëllëre ak moom wax ko mu bàyyi grève de la faim bi ndax dañu ko soxla ma wax Cheikh Tidiane Youm bi yore pur ñu ko demal ma ca hôpital nga gis Pape Alé nga waxal ma ko kàddu yii kàddu yi itam paasewul li ñu bëgg ci moom ak ñun li ñu bëgg ci moom te mooy fas yéene nañ mu continuer di def mission kon nag ku fi jar ku fi jar muy def grève de la faim nekku fi waaw cheikh yum dem waaye garde ya foofa ni ko doo fa dugg yàlla dogal soxnaam yegsi mu wax soxna sa yóbbante bi ni ko wax ko ko ni ko sëriñ Moustapha moo ma yónni woon ci moom te la ma waxit loolu laa gëm dafa tolloog nag la mbokkuma waxoon ca Union soviétique di xool Staline ma ca yàgg mu yëgal bokk bi ni triomphe d'un homme tragédie d'un peuple loolu la yàlla nattoo Sénégal triomphe d'un homme tragédie d'un peuple waaw ko defee nag